c'est pour euh, comme ni ñu ko c'est pour un an. Khalis euh, bi nekk 26 euh, millions. 26 millions yooyu li ñu si prévoir moo que d'abord def ay renforcement de capacité. former jigéen ñi si processus wu lem yep. ba keroog ñu def pause yi. accompagner les aussi si ay suivi. accompagner les aussi si ay formation la nu ñu yore xaalis. yan xeetu garab ñoo fi nek pour mën a xam yan xeetu lem lañ fi mon a amee dañ ko def lancement tey mais peut d'ici fin janvier. en tout cas c'est li ñu bëgg ñun suñu mbëbët mooy bokk si bu ñu nee Joal ni ñu naan ñu ne Joal ñu ne Yoxos ñu ne Joal ñu ne Lem fii ak un an dinañu bokk si les plus grands producteurs de miel yi nga xam ne dañu nekk dañu nekk biir Sénégal projet bi logiquement 150 riches lañ def dans le projet mais ñun dañu jël d' abord six groupements lañ fi nekkoon léegi ñun gis nañu ne am na yeneen ñetti groupement yo xamné japp nañu né ñoom mun nañu and ak ñun liggéey déjà invité nañ leen tay. xalaat nañu feneen fu ñu war wuti jiwaat encore yeneen moyens yu ñu mën permettre tay bé au moins groupement femme bu nekk Joal mëna am au moins entre 150 à 200 cent riches pour mëna am bénéfice réellement li nga xamné mom moy miel bi. Dans le cadre de la réalisation du projet miel, au-delà de financement que nous mettons à disposition pour la mise en œuvre des activités du projet. Nous mettons aussi à disposition pour un accompagnement technique en termes de conseils dans la restauration de mangroves, mais aussi en termes de conseils dans la mise en œuvre de ces systèmes de valorisation. Nous comptons aussi mettre à disposition notre expertise sous notre projet et gestion des forêts du mangrove du Sénégal au Bénin que nous mettons en œuvre en partenariat avec l'UICN et, le collectif 5 Delta. Le coût du projet Miel, c'est un montant de 40 000 euros que nous mettons à disposition pour la mise en œuvre du projet. Le projet Miel est un projet de, 10 ans d'impulsion qui va semer les bases d'une façon de faire qui va perdurer dans le temps. Et cette initiative, on la sur une durée de 12 mois.